dund gi mu ngi gën di yokku mu doon loo xam ne nag indi na njàqare ci commerçant yi nga xam ne moom la ñu fekk ci marché yi. fi mu doon ñu seetlu ceeb moom wax di yàlla borom kër yi ku ci jënd saako ceeb saako diwlin wax di yàlla métti na trop. ah na nag wax dëgg xam nga suñu borom nag moom daanaka gémmiñ gum sàkk rek dana sàkk lu mu ci dugal waaye wax di yàlla métti na trop. waaye instant bi dañu si maintenir di góorgóorlu ndànk-ndànk parce que instant yi boo gisee fi mu nekk nii moom prix daanaka booy xool xaw na tànn tuuti nag. waaw te loolu daanaka moom ñu ngi koy maintenir boobu léegi waa ceeb bi diwlin bi ak suukar bi daanaka foofu la ñu gën a nemmeeku yokkute bi nga xam ne mu ngi gën di jéggi dayoo ay fan rek a des ñu um koor. parce que ceeb cher na suukar cher na te fi mu ne nii pour le moment diwlin sa fi mu ne mu ngi waaj a manqué lépp ngir bëgg koo yokk ak ceeb ak ak suukar ak ceeb. koor gi bu koor sax koor daal bu duggee day yokk fi ne commencé naa yokk. commerçant yi di am tiitaange ne mbir yi mën na gën a yokk comme niñ koy faral di nemmeekoo saa suñu dëdmale événement bu mag. si bu baax a baax. parce que yow da ngay bëgg commande def comme da ngay bëgg passer commande mais euh, da woote si gars yi commerçant yi may ñu la non sama diwlin ñëwagul amaguma diwlin amaguma diwlin kon jàppal ne tout le temps mën na gën a yokk balaa koor bi. man mii di jaay sax damay jàmbat parce que boo doon boo doon boo doon jaayee lii ñëw euh, jënd lii di wax client yi lii il faut jàmbat am ñun ñuy jaay sax dañu jàmbat stocké client yi parce que dafa cher. bu ñu waxee koor nag wax dépense loolu moo tax yokkute bi mën na indi ay njeexital la ci poosu ñi nga xam ne ñoo di borom kër yi. o prix yi denrée dafa metti fu mu nekk ni jamono ji metti na waajur yi sonn nañu ci nekk tamit comme dañ ko nee tamit si li ngay yëngu ci ngay jaam mooy yàlla tamit ñu xool tamit ñu yombale tamit waa kër yi tamit man si sama lu ma yaakaar daal dama xoy gars yi dañu war a xoolaat ko ñu wàññi seen prix yi ñu mun a yombalal bépp waa kër kër gu nekk ñu mun a umee seen koor ci jàmm. am na ñaari at ci réunion bu mu jiite woon président Macky Sall jëloon na ay mesures ngir wàññi yokkute dund gi jéego yooyu nga xam ne autorités yi amaloon nañ ko ngir wàññi coono askan wi terewul jafe-jafe yi mu ngi wéy ba léegi.